juste lo xamné ne dañ ko wara gagner parce que buñ ko gagnewul ce problème là foncier day continuer di étaler aussi biir Cour Safi bañu ñu le développement bañu ñu extension urbaine mais le problème moy le développement doit se faire avec la population Safi tay dañ doon wax Dougar ñu ñi ñàkkal fayda tay dañ ne communauté Safi ñoo wacc wane s'en bop tay ku gis li yaakar naa ne boo xoful tito do nit bu fekkee ne tey jii l'administration li ñu gis yëngalu leen ñu xam ne duñu ay nit on n'est pas là pour xeex état mais on est là pour parler à ses administrateurs état moo fi teg ay njiit ñuy làqatu seen bureau di def naka sudul noonu di jaay population bi doole bu ñu jógee làqatu ci gannaaw état naan nous sommes l'état ñi encaissé def ci seen poste ngir pick-up nañ génn taxaw ci naaj bu tàng bi balaa mbir mi di leer tribunal lañ jëm def wax dana feeñ. dafa am ñaari département yoo xam ne ci Sénégal dafa mel ni bandits fonciers yëpp fa lañ nekk dafa mel ni voyous fonciers yëpp fa lañ nekk dafa mel ni gangsters fonciers yëpp fa lañ nekk mooy Rufisque mooy Mbour. Moulay Gaye nag mooy maire bi fii dama ne maire daf fi nekk pour askan wi le maire aurait dû être ici. ça veut que est-ce que le maire Moulay Gaye waa Pikok joxuñu ko xaalis Moulay Gaye dégage.